weeru kode de yegsi na mau gu bari na tange Mo weru mbégte Weru yon mane mo gan chi weri koro jamak ak taw la len di ñaan Alhamdulillah man mangi ngi santaat bi ñu maye nyu dundu feke wat waat santaat na ko def nyu lolo nyu Assalamu alaikum alaikum Assalamu alaikum alaikum ye yeah. Assalamu alaikum alaikum ye yeah. Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa tito namu na len namu na la bay ma len raw waaye kaay dama ko jeng ci ñu wax len ko ma wara wax bari su mako waxe xamna xam fi wa da ngeen abonné nak ma wax suñu abonné wu wax de abonnez len nak si temps yu tiktok bi moom mu ngi wàcc ba zéro commentaire yi ñëw leen wax leen ok ñu ne fa ngay tiktokee maa ngi nii suñu saal di tiktok ok ñu ne nii ku nekk sa ginnaaw kan la golo golo ñii ñaaw leen Ei, ei, ei, ei, le watch, ma. o WhatsApp, o WhatsApp Ei, sama téléphone. Ei, Ei, sama téléphone. Ei, Moom naa ma quitté fii. waay indi sama téléphone bi nga naan ma defal naa. lan moo tax nga réew. ah te sama téléphone bi ñu naan la golo gi ci gannaaw nga naan golo la. yaa tudd bu ñu la Ei, eh vous m'emmerde. yow yaa réew waay yow. ba fi nekk doo ma def. waay kii dafa réew waay. ah. <laughs> dégg moom moo ma abal portable golo mu nekk fi di mer yaa fi tëdd bu ñu ne la wax na Maguette yow exagéré nga man ngay waxal sa baat bàyyi ko rek yee koor gi golo mooy bu ndaw bi da nga ko doon wax dàngin mooy bu mag bi Maguette yow wax di leen dàngin la rek Maguette ah yow da ngaa réew ba jàmm yow mën na toog sa kër baay nga dogoo foofu demal demal Maguette demal e jógal Maguette demal bàyyi ma ma tàpp ko waay yow Maguette demal Maguette nii Maguette mi bu fi Maguette di ngeen am problème de oy màgget mi nii la ko bàyyi. xanaa itam système golo nga nelawe. nee ba taw di tëdd di juut di sëgg di juut. damaa wéeru waaw looy wéeru. xale yi xam nga ni ñoom ku ñu gis seen ginnaaw yaakaar ni ko ma téléphone dégg am na mas ci golo ak mas ci gaynde ak yooyu. waa ci loo ne ngi nam naa la maa ngi fi ngi sama maa sama poro sama wër bi rek. ma ngi yaa ngi ah waaw nu may def comme ça waaye moom kër gu ne dugg na fa nii def chef rek ah Moustapha suba nan wor gaay nan leen wor suba dem. jeex na ndogoo foofu yow daal wax ma heure bi. waaw ah. ma tàggoo fii génn dem. jeex na jeex na ah beneen bi mooy. Uh-huh. Ah, kii sama xarit la. Ah. dërëm la tudd waaw mooy gaajo. mooy gaajo bu allez bien. ça va bien ça dafa neex nag marche bien. Euh, kii nag lu tax ma indi ko. Uh-huh. Euh, xale bu baax la. te xam nga liggéey bi may bëgg liggéey mhm. il faut moom secrétaire bu mel nii bu mhm. civilisé mhm. te dégg tubaab ndax am na yoo xamante su ma koy bind ci ay kayit il faut moom assistante boo xam dafay toog di ma ko bindal yàlla dogal na maa ngi moom waxtaan nan bu juboo moom mooy nekk sama secrétaire dama koy wutal bureau ci biir kër gi moom ñuy def ay domicile ak ay yeneen yëf yu ndaw yi sàkk yu yooyu yëpp bu ma gouvernement moo woowee bu may ànd ak moom may dem muy ci tubaab dëgg la mu nekk sama sama traditeur <laughs> waaw yor ma sama kii kii hmm. moom bokkul la dara tubaab. waaw waaw waaw yaayam mooy tubaab. Ah. yaayam mata jekk bakkan bi laa gis mu wàcc. yaayam dégg nga tubaab bu fi si woon madari madarina <laughs> madarina. madarina <laughs> mooy yaayam moo ko jur. <laughs> madarina mu ngi noonu kii maa moom dina nekk ci liggéey waaye du lool. Hmm. moom yan saa yi dina yoo xam ñoo koy ànd waaye hmm. dina am yoo xamante ni du ca du ca dem. ndax am na yoo xam ne secret professionnel la. loolu maag yow koy liggéey. moom nag sama wëllëre la. Hmm. waaw kii daal mi ngi nii. damaa bëgg liggéey bi yëpp ñu teg ko yoon bu yàlla defee ñu fal moom ma daal di koy wutal bureau ci kër gi. Ah. mu commencé liggéey liggéey bi pour kenn du ma déranger. macha allah moom mat na secrétaire. ma ngoog jeex na waa kay. moom am na casting bi. <laughs> macha allah law la ca. <laughs> mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu. kontaan naa looloo taxoon ma indi ko. Euh, alhamdulilah rabbil alamin waaw. xale bi mu wàll na de. gis nga <laughs> euh, gis nga nag yow. mi ngay tàqante ko mel ne ku sax tàngal gingeer laa xam ne loolu ngay wax. koor ngay bañ. waaye yow koor yi daaw dafoo fi njombe. du ma ko wax ndànk. prévenir mieux vaut prévenir que guérir bu la doxaanee na nga bañ. waaw kañ. Ah, da da déedéet lan laa lay indee di la présenté tubaab naan la sama secrétaire nga naa xale bi moom la fa moole. waaw noonu laa koy waxee. noonu laa koy waxee daaw fii la ñuy indil musiba bokkan xeexam fan lañ koy waxee ah yow jógee ko ci loolu nga yootu leneen kii liggéey ko fi indi yooyu ko fi ah. ñàkk nga surtout bul ma yàqal. dama lay wax rek. parce que ma lay woo dama laa dëy. jërëjëf waaw loolu indiwuma fi. très bien. liggéey kii moo fi indi. merci. ba ay doxaanante. leer na leer na moom du doxaan day cof daw cof daw lay def picc la. danaan cafat daw. waaw bu caractère ferme nag. anani. seede maa ngi dem dafa ko yóbbu kër kii kër ministre de la défense pour ma def porte plainte conduite ex ndax yow xam naa la da nga laaj gàllaaj waaw merci. fi lay wala moom. sa yoon nekkul ci fi muy fanaan. damay laaj rek ay gaajo faqale faqale jigéen gi la gaajo sa faqale jigen gi lan la damay laaj ba xam fii lay fanaan dëkkul ci kër gi dama koy wutal appartement fenen mu dekk dëkk sen kër mais yow fi ngay fanaan ah lu fa way fanan fenen ah xaw ko ma réer mel ni ku lan la yaa ngi jëmbat loo xamante ni la lan laa jëmbat lu dul yaa ngi jëmbat loo xamante ni bu jébé dee jeexagul wala yaay num mu tudd ah yaay num mu tudd Madarina Madarina Madrid na nar ko ko Madrid. nar ko ko marraine. dara yaakaar ni rek. marraine kat la da koy marraine bu mu saf saf kii. doole raadu. suñu ngëneel. da leen ko def loolu ñu war. asalaamu aleykum. waaw daa nga kooka da leen jàpp na. andu be. affaire daa saf. saf dafa métti dafa métti trop. ah. waa dafa métti trop te damaa xëddul bii ci guddi. mais ni nga wax dafa métti nag yaa ngi daam ku la ku la gaañ. waaw dafa métti trop trop mu ngi bëgg a yàq métélo. dafa métti ba dafa tàng. waaw kooku moo tàng saf. mun ma kooku kenn ko métélo. ah la moo tax ko métélo. pa paka loolu moo ci baax. kool lu gën a bu sa kaw. wala asin ku la ëpp yow. waaw kool moo ku kool kool toog ci naaj bi. wóor ba pare toog ci naaj. yaa allah. waaw soo xamul walaay soo soo xamul la nga ci am wa wasak ci bénéfice soo woolee fee ngay sumee ko dem tàggu fee ci naaj yow yow la moo tax bi koor gi commencé ba léegi demoo toog ci naaj bi ma dama aaye koor gi ah, dama xala wóoroo yow yow yow métti méttiwaayu koor yow yëgoo ko dama xaa aaye waaw ba pare nga nekk fi naa boo wooree da ngay toog ci naaj lii lii lii waaw yàlla sant ko kenn koor gi dafa métti tër waaw léegi la nga def ne la yàlla santaa kay kay kay mbay si ñaala moom mu ngi mu ngi woola kon mbay si mbay hmm, si wóorut tey de fan yii yëpp nag fan yii yëpp du wóor ñàkk hmm, jom. wóolam sax daanaka de. fii kër gi man dong maa fi wóor. daa ñàkk may ma. <coughs> sama xel moo doon si yàlla. Hmm. <coughs> Sera moo nekk fan Allahu akbar. Sera moo nekk fan. tuuti sama dal bu nekkoon ci yàlla di nga woor mu de xaame ah, ah, ko waxoo ko xaa nga nga li muy xëj ko nii na yow saxal na rek yàlla nga jàpp di mu xanaa nga bàyyi la su nekkoon ci yàlla yaa moo jëx lii yàlla di tele nga bàyyi ka vraiment lii mënoo ko waaye si yàlla ñoom fekk ñu sob ñu ñett mu ne ma rey eh, ñaaw rey mu muuma ak jël butéel bi bu la gënal ma ko boole ci sama papa ak sama yaay ak sama sama rakk yi. waaw. Hmm. moom moo gën koo am. xaaral yàlla yàlla su doxoon ba ñëw fii bala laa laaj laaj mu ne ma am laaj ma parce que yow yow yàlla doo fekk ñu ñett dina laaj. dëgg yaa suñu yéen man lay laaj. solal laaj ma Ça va? laaj. yaa fen un xanaa xamoo. doo aar Ça va? na la dëgg. yey ñànk. il ay ñànk. ça va. ça va. pousse Ça va? nga tëj sa ça, sa caleçon bu Ça va? pousse fi waay fi Ça va? nga tijjee ko. dogal koole boo xam ne. Ça va? تما قتلخون لازم لازم فاسكلا لازم يناول لي فايكا هاجوني لا يا بيكي يا بيكي لا لا لا قلت ما لا لا دم ورا مال باه كيك سيبان مان ما تنيك غتا خني تخار تكن ستان كده انا سكا لا ما روح ده ماني ولا جيش اه waaye na wax ko naa bàyyi wax xasam nga xasoo gi muy ŋaañaareel ni nii bàyyi bu a laala dem. bari jàmbur gi dafa woor bari jàmbur. mën naa woor dox ci naaj wi nga topp ko nii. waaw jaw bari jàmbur waa yow. yow dooreel bi gi du ma dal dee dee romb bi di ñëw jaxasoo. <laughs> bii de daal na moom. <laughs>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 waaw waaw. kii kii daa wóor nga jàpp ko doon ko tey jii. xanaa daa yàq la dugub xanaa daa yàq dugub dóor. waaw kii daa yàq. yooyu loo daan ko dóoral. Ngamandi bukawewul. Ngamandi ni. Maa ngi gis. Maa ngi gis waaw lan ma tax nga war a war. yow a yaa de kii yow yow yow da ngaa sa da ngaa neex. wax xam boo mandi doo doo am équilibre. lu tax nga fëgg ma. kii de am na équilibre tey tey de am na équilibre tey. mais boo bi la bés boo gisee maanaam di xeex ak ñoom yaa xam doo am équilibre. waaw lu duule da ngay day. maa koy bàyyi mbéy ko. kii maa dem fóorul bi laa. booy bu ma jaga de. gisoo mi ngi xëccaat de. bu ñàkk. waaw. <laughs> koor gi koor gi noo koy dundee nag. ren wow. ah. koor gi wala weer wi. ah mooy koor gi wala weer wi. waaw waaw koor gi. weer wala koor gi. parce que boo xoolee yaa ngi ci weer bi yaa ci koor gi. ba maa ngi ci koor gi ci weer wi. waaw léegi yaa ci weer wi yaa ngi ci koor gi. est-ce ngi ci. maa ngi ci pul. waaw kii kii kii weer xam ne doful ba da nga naan wér na. kii xaaw kii. waaw ci dàggalee rek kii day dàggalee. foofu bi foo ko muulee fenn rek xamal yaa ngi fay sàcc. ñu ngi lay woo. waaw maanaam na ngay woo lii réveil la foofu laa jàppe. kii saa su ma sàccee dàggale. yow yow man saa boo sàccee dàggale. yow woo rek. yow fii waa yow. ma ni ren di nga woo saa Ya rusak. Dur. Waɗannan dai nakta. Wannan dai nakta. Barus burshe ni da def. Tabbas ai masake dagal. Sai ame gaci ni da def. Dan arus wet. Um zaf zaf zaf. Denk po kan na da po mga finar da na ya. Sinne metro zo afe. yo. Yo yo. Eh, Ito wala la laa faju pour ñu defa opération lu ne opéré ah xëy na xanaa ko feebar lay opéré kii lu ko dal mais yow ah yow ah sa papa dafa gaañu dina gaañu kay waaw yow sa papa mosul def soq bu muy defee soq mosul def accident ah mosul dafa gaañu gaañu kër mos kaa agressé déedéet laaj la lu tax nga laaj loolu sa papa da doon yar ay bëy seen kër déedéet déedéet yarul bëy yaa ngi ko mu nekkal nit jarul béy nga topp ma daal ay béy daal ay. waaw tamit gannaaw bu ko soog. maa xam daa am benn daa am benn paa bu ma doon wax. waaw boo xam ne bàyyi baa foogoon gaañal. benn paa bi la. benn paa benn paa boo xam ne bàyyi dafa kii woon. man de lay jokkalante ak dof bi nii. damay bañ mu wax ay toj toj kii dafa dof. waaw waaw waaw waxi dof waxi dof. waaw waaw lu teere du neex mbokk. damaa eh, eh, xamoon benn paa boo xam ne. dégg nga ah? dégg nga. dafa defoon accident. lu defee accident awla bi awla bi daal gars yi jël awla bay daa ko kay defalal. dégg nga xanaa léegi koo koo koo koo koo bakk yàlla wala koo. Ah, ba bu taxale. ba paa bi moo daje ak docteur bi docteur bi nekkoon nii parce que waaw naka affaire la mu naka mu naka naaj kay mu ne ah mu ne am naa sax benn doom parce que bu góor. mu ngi nii mu na mu na ko nuyu sa papa mu na ko noo tudd mu na ko mu na ko ba de laa comme da ngaa waxee. man ñàkk bi yow man ñàkk ba nga ne ay awri be man nii lay wax. yow sa wax bi guddi gi yëpp nekk man de wax. waaw waaw dañ nga yaxal waaye. waxoon naa la li ko wiir yow li moo tax ñu naa la def. waxoon naa la ko waxoon naa la lekk nit. coow ba ay loolu man sax tey loolu moom fi andi. xam nga lu ma fi andi. waaw. chef chef de quartier. mooy ni daa bëgg ñu defal ko campagne. waaw campagne boo xam te ni. waxal rek lii. campagne waxal. waxal rek ngay tooyee nii. campagne boo xamante ni sensibilisation maanaam campagne bi dañuy dugg si kër yi wax leen ni maanaam ñëpp ku dégg ñu convaincre la ni la Sémou moo war a doon chef de quartier fii. jëlal ñu koñ bi loolu la bëgg. pees ma ne sama peel la moom. bu ah waaw ab laa ak a la. sëñ Talla Bébé yaay Fatou moo ko tegal. waaw mu ñuul laaw fan laaw. yow garaaw mu ñaadeel bu ñu après corte bi la. après corte danañ ko defoon. te te moom sax mën naa am moom bu nekk chef de quartier. Ah. Talla Bébé yëpp si loxoom lay teg. kon kay day baax. waaw. léegi nag leen daa bëgg. Talla Bébé Talla Bébé di ñëw nag. Ah. bu mu fa bu mu fi nekk di hôtesse. hôtesse la. di sol ay yére. am kay. pakk yi loolu kaay ñëpp loolu la ñuy def. nan hôtesse rek ah non man dañuy nuloo waaye dañuy def dañuy génn feneen. Hmm. kaay di ñu xaal ñu naan ñii tey dañuy sol. e jafe lay sol mbasin ñu ñëw ñu def taatine rek gën. mu nekk benn coow. parce que yàlla dëkk bu yëpp tajax na. kan dootu kan dootu ko waxatee ah. wax dëgg yàlla yow mu neen kese nee rek. nga taxaw rek nee nii nii kese. ah yaa tax sama sew kese. ah <laughs> yaa xool ma <laughs> waaw ah, naka ndox benn benn boobu benn waldaa bi moo baax benn bi baaxul. Hmm. voilà bàyyi waay yow. xale léegi xale yi eh, ñii dañoo ñàkk faale léegi léegi paa bi lu mu wax. léegi si ah, waaw dañ ko def waaw loolu. <laughs> ay bu ay bu sànni xaar ay bu ñu sànni xaar ba wala si gërëm duma fol mal fol maa ngay nii laa def bu sama xaar sama jam bu laa utax sala sama jam bu gudd bu la ah, gaay ñoo ma xalaat ñaan waaw boo sëggee nii maa war leen laay wax yow si yow ah. wax na hmm. ah, ka hmm. Hmm. saa ten paa bi ma ne yow ma ne paa bi. waaw bëri nga wax ten biir bi ah. doo semu nii. waaw léegi semu loolu la wax loolu la wax waaw bu bari la teg si taabal. waaw ah. nee nañ ko defal benn caravane wër koñ bi yëpp. Hmm. wax ni semu mooy chef de quartier ñu jël suñuy rajo commencé ku ne wax. kañ la kañ la léegi nag nee na ma wax ak yéen ba pare bu ngeen nangoo bu leen neexee ñu dem fa. bu leen neexee ma dem wax ko ni ko nangu yéen ñu jox ñu xaalis. ñaata ñaata fay. waaw léegi nag xaalis bi nee na bu dee. ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata la koy def ñoom ma ma ma xool caravane bi quatre jours lañ koy def. quatre jours quatre jours waaw quatre jours. ci xol bi yëpp quatre jours. Ah, waaw quatre jours. quatre jours baax na ñëpp euh, la. dix heures commencé ba quatorze heures ñu wàcc. dix ku ah, sa kaw à on chaque jour. eh ñaar saa xanaa kii ñaar ku nekk na la fay à ku nekk na la fay à part. boo dee waxaaleeg moom ku ne ma am na moom mais xaalis moom mu ngi si moom ndax moom nee daa am benn magam bu ko jox xaalis pour campagne bi kese. campagne eh, bi nii. man taw la waaye yow chaque jour. mën na ko mën naa jënd bu dee rek. waaw taw yàkkamti. te de ki naan ay taw ki naan deux cent cinquante. te day joxe xaalis politiciens yi dañu am xaalis. ci biir eh, xaalis xoolal quatre jours la ko soxla. quatre jours xoolal da nga ñuy jox bu ko defee ñu ñu gérer ko ñu gérer ko. moom Modou Modou Gueye dem doon campagne ba mu ba ma ko zélé affaire xaalis. waaw Modou Gueye. waaw xam xam jëloon Modou Gueye jënd caare kaw. waaw jëloon waaw jëloon naa film yu bëri. waaw moom moo ko joxoon. ak ak kii Pape Modou Fall. waaw waaw moom jox naa la xaalis bëri bi ñuy campagne. sama xaalis dañuy fay. yow lu tax ba la jox xaalis. slip rek ngay jënd. waaw slip ka ma baax. li mu dee slip. ba ba kayal waaw loolu waaw soo su quoi lu gën slip day xeeñ nga changé. si li bay xëy bëgg yooyu bàyyi loolu ñaan ko moom li tax bàyyi loolu tubéy normal sol ko kii day watatu watatu mooy la moo xaw na ka xaw jaar ka def ah yow la ngay def man a xam nga daal sama tànk yi fan yëpp sem fu muy dem ñoo fay ànd lu muy wax ñoo koy wax yéen nag laa doon xool seen avis cinq baax na cinq cent mille daal bu ko amee ñu liggéeyal ko quatre jours bu ko amul noonu xool feneen

da daale bi na la na la luwee ala ala mi ko ala ala. waaw yooyu dañuy def ka caravane. waaw. 500000 bu liggéey bi neex na te 4 jours ba liggéey la da nga koy gérer fët fët après lan lan la ñu wax. dañuy wax ku ngeen àndal CMU ku ngeen àndal CMU waaw wooteel leen CMU ñu nekk chef de quartier waa koñ ba kaay la seetaan CMU ñëw na baja baja ba ñëw na ba ba ba ba léegi bu ñu wàccee chaque jour yow ma jox mille francs yow ma gérer juróom fukk deux cent cinquante yi ñaari cent francs ak benn fukki dërëm ak tamit du la gën a ak sama maanaam fukki. kon ñaar doy na. wax yàlla ah Thiaw. <laughs> wala li Thiaw la def parce que ah Thiaw.